Bonjour c'est qui ça déglu leen jàmm la mais nag sama gars yi tey leen rek la benn muus moo dóor 18 pigeon jàmbur mais nag borom pigeon yi jàpp na ko ba dóor ko garde à vue yow looy wax ni muus maa ngi nii nag depuis 15 jours ñi ñi ñi ngi naan am muus mi jàppal sekk am sekk jàppal muus mi ñi naan muus mi ñam naam ñamul dem naa ba dégg ñu ngi naan sàq mi naam sàq miwul amatuma équilibre. moo taxit lu ci mëna am tey lépp dina lèr motax may laaj. loy laaj. kan moy victime ci yef yi. wa man mi may victime ci yef yi. ah yow lañ togn man la muus mi togn agression ma dugg sama kër. lekk sama xet. xana kon bi moy première fois mu koy dogo def nga koy tek loxo. du du du première fois bi nga defee ci laa ko teg loxo. kon ñaata yoon la fi ñew muus mi yag na ñew di jël sama xet di roñ. di lekk. mais nak sekk taxawal am na ko laaj ne.

sekk kii mi ngi la laaj nee na sa butu kaaf gi xanaa da nga koo ñab-ñabal wala caabiloo bi ba musuma la bi ni mel mhm. buntu bi daanakaa tamit daa xaw a am nu mel xañ na moo tax mos mi nokkatuma oh. yëf yi nag man sekk moom am na waywulul fay ndaxte fu ñu tuddee muus mi ëllëg dinañ tudd sekk wala fu ñu tuddee sekk dinañ tudd muus mi ba tax na lii dàkkantaal rek lañ ko mën a tuddee li may gën a naqaram sama turum génn ci Sénégal gépp adduna bépp ku ne sekk ne moos mi te wax dëgg yàlla bëgg naa ñu dàkkante ne ma leneen lu moos mi kon lan nga bëgg ñu dàkkantelee la man dañu ma loolu lépp dàkkantooruñ ma ko ma dàkkantee ne moos mi koo xam ne am noonam sama opposant lañ may dàkkante exemple man dama dama gën a am na ma sama opposant lañ ma dàkkantelee <laughs> yow ay sekk am nga opposant bu mag opposant kii tamit li muy laaj ñee xanaa nekkul ne 18 pigeons yi muus mi dóor moom la sekki mer ba dóor ko garde à vue ci biir 18 pigeons yi muus mi da cee laal bu mu laal ba tax sekk vengé mooy mooy mooy dafa laal laalaak xët wu baaxoon na ndeysaan te ñeme ak njaboot waaw ñeme nompal ñeme njur ñeme bóof xët wu daal damaa demoon ba am si lakk sama gërëm man ci kaaf muus mi ñëw lekk ko muus mi nag toj na saawaay ak gindam du gaaw kii nii mais nag lenn rek moo ko jaaxal naka la sekk def ba jàpp muus mi ak muus ni mu ñëw na defe na man fatu naa. lépp maa ngi koy suivre en direct ndax booba man maa ngi toog di ko xaar. dugg na xool ndax sekk fatu na ndax kër gi maam kenn bu yëngatu yëpp muus mi opéré na ko defut yëpp maam defut. mais sekk taxoon nit ñi muus mi bàyyi ma la te xamul dara. bu doon bàyyi ma day ñëw heure. ñu xam ne kii kat yëfi bàyyi maa ko jàpp waaye defu ko. yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine musmi bi procédure bi di commencé ben avocat rek la amone ñu demat ba si biir dégg ñu ne musmi amal na benen avocat bu tuddu mbay sabar sabar ba mbay sabar sabar ñëw na pour défendre client wa mbay sabar sabar ñëw na waye ki mu bëgg défendre mënu ko défendre alu ah, tax ndax ki mu bëgg défendre kaaf dañ koy def pour mus kaaf pour ay ganar wala ay xëti mo tax ñu défar kaaf waye kaaf ak mus ko mus ko gis deug du rombi nop ki mom nee man mom sék xamna naa dama lay ñaan rek ndax man maa gëna a baat ci réew mi ni gàttaay kiriku dama lay ñaan rek nga bay mus mi mu dem wala nga may ko liberté provisoire bu mënul ñàkk ba mënul ñak nga dër ko contrôle judiciaire duma ko bayyi wala ma koy may liberté provisoire wala ma koy def ay contrôle judiciaire ndax wuur ma ko bayyi tay duma ko bayyi ëlëk ah c'est mi ne caaxaanul nak ki dof pilis la ah de way de <laughs> wa may sama sama comme que yoy avocat mous mi est ce que fek nga mous ci condition yu bax mous mi bima ñëw nekk fek ko mako ci condition yu bax mais sek mo mo ñu waxone mous mi mi ngi lek mi ngi nan tay gis ma fa dara lu mi lek mais Seck est yaa ngi dégg avocat muus mi li muy wax. comme avocat am mu wax dama ci revenir. mais moom nee muus mi lekkul de. yàlla xam na léegi ñaari jën laa ko laa ko sànni jën yaa ngi ne jën yu benn bu ne maa ko jëndee quatre cent franc ñaari jën yi ñu taxee huit cent franc. ah fere yi mi ngi bëgg a bari di yow dafa mel ni da ngaa muus mi nag. mett na ma nag yéenewuma ko ndax daa mënta ñàkk farata la. mais avocat muus mi nee na muus mi nekkul ci santé bu baax. na seen a baax a baax baax mi ngi lekk mi ngi naan mi ngi ci bonne santé kii tamit mi ngi laaj nee na li muy laaj moom tëj gi tëj muus bi est-ce que bu yàggee muus bi di yooyu maanaam rag gi. dina muus bi dafa mujj fees dell. déet sekk yaa ngi lekk muus bi ci xel de. kii tey bu daganoon yaakaar naa ma koy reeree war ma añëw muus bi mu daganoon lekk naa ko. ay lii di man de muus mi tiital naa ko nag. <laughs> waa Mbaye est yaa ngi dégg sekk li mu wax sa client bi. waa sekk dégg naa li wax lépp ci muus mi li mu tuumaal muus mi. ah moom dara leeruñu ni muus mi da ko lekkal dara na bàyyi muus mi. ok Mbaye yow en tant que deuxième avocat yow lan mooy sa xeex. man sama sama xeex mooy mu libéré muus mi. mais nag Mbaye mais sa xeex gëmu mu sotti ndaxte sekk nee war na la ay dunq. ay dunq ay dunq bu waree ay dunq sànni ko ci nguuru li loon ci man. dégg naa sax waa section de recherche Kinaara mujj nañoo dugg ci enquête bi te dégg naa am nañ ci tuuti preuve xaar ñu xool ñoo ko gisandoo amatuma équilibre mais nag yow dafa mel ni sa client bi ci ay caaxaan ak ay tappale rek la ne lii da lañ naan njumanoo sant mun a comme que brigade de recherche dugg nañ ci mbir mi waa kon muus mi lan ak lan lañ koy toppee ñetti ñetti dossier la ñuy toppee muus mi violation domicile ak ban assassin muus mi raykat la troisième bi euh, beneen dossier mu dernier public dossier bi nag sekk man de bu ma nga bàyyi mu

yaa seexul Ibrahima Baba Lamine Diassé. te li si gën a garaaw ñoom seen ministre de génn na laajte lan moo xew wax nañ ko nag li xew mu duggaat bi mu duggaatee rek la nervi yi génn ñii ñi ngi naan. est ce que est ce ministre de l' intérieur bi moom moo génne nervi yi mais tamit ñu toog muus mi ngi direct Facebook ak Instagram di posté gars yi nan leen résistance nekk leen ci rek amul ragal maa ngi ñëw. si à la 99 minutes 59 secondes capitaine Mouss la brigade de recherche a démissionné vrai patriote ah neexul ba neexul mais mbir bi mujj ëpp mais xoolal ndeg ndaan Mouss mi ngi firi je TV ak en ce moment ba mais je suis war daw Mouss mi rek waaw ndax fii moom fii mu nekk defuma fi dara yokku fi defuma amul ma fi def mën naa ko fi garanti da ko joxoo jën ak naan waaye liberté ah, waay kon léegi doo ko bàyyi mu muuru tuub te jégalu tamit ndaxte min nañ ko ci Sénégal bi ah soxna mus mu sell bi nag mu ginnaaw muuru nee nag daloo ci mais xoolal Mame Goor Diazaka nee na lépp li la waxal yaa ko def yaa sàcc prison jàmbur yi ak cuuj yi découragé naa nag sama àdduna. man de damaa rus. mbir mi de mujj naa ëpp loxo daal en tout cas lu ci mën a am président de la république la génn wax bu mënta wax it mu yebal ministre de l'élevage mu génn wax. ndaxte ku si génnul wax bokk ci réew mi te amul jën maanaam ceebu lujum lañ koy tuddee tamit. mais c'est man daal li rek la na Seck libéré muus mi wala président génn wax te ci noppi rek complice nga man de lii laa wax mbàyyi loolu ngeen wax.